combat mu Gambie taxawoon na ay coow yu ndaw moo ko yàq Pambaay demoon dama moo ko xoyantaan sax demoon na ba taxaw xooyantaan ay supporteurs ñoo ni ko noo kii du bëre après dem jël double bi Pambaay mujjee daan euh, loolu lépp làmb la mooy lóbi làmb. boobu dañoo niil double Tyson ak ak Pambaay moom dañoo niil moom. non xam nga tamit euh, deux pois deux mesures mënul am moo tax làmb il faut ñu ñàkk ko gis nga làmb euh, sport la comme yeneen sport yi match nul am na daan toog ci dënn am na dóor mu daanu am na. mais nga gagné par point tamit am na. Pape Mbaye dafa daan double Tyson ca ca bi mais daanewu ko daanu ko mu toog. daanu ko ba mu ne jàndang ba mu ne mais euh, Pape Mbaye dafa dominé double Tyson dominé combat bi jël combat bi pousse ko à l'erreur double Tyson def ay erreur Pape moom mujjee jël ndam li. te gis nañ différence de poids avec différence de taille bi mais xam nga ndaanaan moom yooyu jaaxalu ko en tout cas Pape Mbaye pare na pour ñibbi si bëre Pape Mbaye pare na pour ñibbi si bëre en tant que je en tant que président de l' école de Mor Fadam Pamba c'est un licencié dem na Espagne intégré fa club MMA yi doon entraîner Covid bi moo tax ak confinement bi moo moo moo arrêté loolu. day continuer ci carrière MMA bi mais day continuer ci carrière du bëre bi dañu bëggoon am ñaari combat Gambie ak Sénégal mu ñëw raafale ko soo ko delluwaat loolu la bëggoon mais ba mu demee Espagne ba léegi day entraîner tout le temps mi ngi entraîner Pambaay nee na ma président ma nekkoon milliardaire sax dinaa fay bëre. bu ma nekkoon milliardaire du ma tere damay continuer sama carrière damay bëre parce que man bëre laa bëgg loolu nag moom moo ko wax moo waxaat la ko nii mais Pambaay moom bis bu bis bu doon pare na ci làmb dama naan la non dama naan la non Pambaay pare na ci làmb. man sax am na lu ma jot a wax nee na man li ma def ci làmb balaa may bàyyi làmb il faut loo xamante ni dama naan lii ci làmb laa ko jëlee te amaguma ko benn yoon. non wax na dëgg péché lay doon Pambaay tarbiyu làmb depuis 12 ans mu nekk ci xam nga du ci sonn jàng bëre ba mokkal ko mën bëre fi mu amee moyen dem Europe. di liggéey pour am doole ndax da doon wax pambaay doole rek ko manqué mu dem am moyen dem uti doole su waree bàyyi loolu day nekk day nekk spray ko day nekk yàq quoi ce serait dommage mais ñaanuñu ko yàlla waaw en tout cas daal contexte bi nii moo ñu jaaxal mais pambaay moom pare na pour ñëw Sénégal bëre moom loolu moom man maa la ko wax en tant que président pambaay moom pare na pour bëre Mame Balla no recul moog pambaay dañ doon def nii ci mbapat xam nga dugg ci arène bi di def nii combat bu neex la parce que Pambaay bëri na fi ak ay Marley yenn mbër yu bëri fii nga gis bëri na ak ñoom bëri na ak Ama Baldé sax mbapat ma wax la ko tey Pambaay bëri na ak Boy mbapat Pambaay bëri na ak booy yi nga gis fii yëpp bëri na ak ñoom. yow daal su ma déggee wax ji moom dama lay dagg sax su ma déggee wax ji dangaa gis euh, Mamba la dem ñëw xaw a leer tuuti rek moo tax nga ne nañ ko jox Pambaay. non dama ko proposé woon Alain dama ko proposé woon Alain waa ren DKR yi proposé woon naa leen nee naan comme comme Mamba la nee na pare na pour bëre Pambaay pare na pour bëre ngi Europe pourquoi pas yéen yéen seen base ko Bercy wala ngeen la woon Zarko nee na pare na pour bëre ah ñun Pambaay na pour bëre ak Zarko pourquoi ñu tëgg foofu noonu Espagne parce que diaspora bi nañu làmb par exemple contexte bi moo ñu jaaxal ak ak corona bi loolu pare nañ en tout cas Pambaay pare na pour bëre même bu dul ma la limal Pambaay bëri pare na pour bëre ak ay naataangoom Pambaay pare na pour ñëwaat Sénégal bëre te incha allah day am.